Hello les internautes de Wasare TV, bienvenue dans votre rubrique K sur le plat. Comme d'habitude, K yëpp lay jël sur le plat ngeen tànn si bu leen neex encore une fois xam vendredi passé ma ngi woon fële si Italie dafa benn concert bu exceptionnel Wow, concert de ouf xam ngeen ko waa diaspora bi yëpp ñëw gis nañ fa sax euh, ay artistes yu bëri waaye gis nañ fa tamit ku si mel ni kii di Adamo am na yeneen artistes yoo xam ne tamit ñoo ngi woon fii Sénégal te actuellement ñoo ngi foofu si Italie mën na si ràññee kii di Ami Sène Petit Gallé moom tamit moo ngi woon foofu si concert bi Wally Ballago Seck toj fa encore une fois guichet fermé waxaat naa leen qu'une fois c'est le roi des guichets fermés actuellement moom mooy doomu réew mi c'est le Faramareen le choix du peuple le chanteur du peuple waaye gannaaw bu mu concert boobu yëpp amee tamit dafa am leneen loo xam ne tamit xew na fa te Sénégalais yi ñaawlu nañ ko bu baax a baax a baax muy lan kii di Wally Ballago Seck gannaaw bu def si biir concert nii dafa am ñeneen ñoo xam ne yéegoon nañ si kaw scène bi kaw scène boobu nag fa lépp xawee maanaam Wally Ballago Seck dafa takkoon benn chaîne ñaari chaîne en diamant la yore woon gannaaw si concert boobu bu mu paree gisatul ñaari chaîne en diamant yi ñu bëri naan am na ñoo xam ne ñoo yëgoon si boog si kaw scène bi ñoom ñoo sàcc lii di chaîne en jamaa yooyu loolu ne ginnaaw ba kenn koo xam ne concert ba concert bi jeexee ba suba sa am na kenn ki ñëw ne ko Wally looy wax si Sénégalais yoo xam ne wala sax waa xamuñu ay Sénégalais xamuñ ñan lañ ñooy wax si ñoo xam ne ñoo yëg sa kaw seen daal di sàcc sa ñaari jamaa yi waaye kii di Wally Ballago Seck lu mu ko tontu mooy non garaawul ñaari jamaa ñu sàcc la ko nga non c'est normal c'est Wally Ballago Seck parce que à chaque fois gis nañ ko peut-être xolam moo ko tooñ waaye te ak lu mu mënti doon ak nit lu mu baax baax baax il faut que ñu tamit ñu xool lu baax a baax ñun tamit na la ñu war a doxal doxalee ak moom. ce ne pas que mooy le centre du peuple bëgg nañu nit ñi bëgg nañ ko que fu mu dem war nañ ko def lii. gisoo nañ ko si ay kon même bu fekkee leen Sénégal yi bëri ne woon nañ euh, sàcc ñi ko woon fii c'est que Brésil lañ ko sàccee woon lañ sàcc woon lii di bi moom dafa leer parce que bu leer woon kii di Wally Ballago Seck du ni non c'est pas grave nañ bay wax joy non. mais ak luñ ñu pas, a wax joy non am yo xam dafa ñaaw manam ci nit wax ma ni si Sénégal même féké waruguñ ne 100 ko wax je ci Sénégal parce que ça, mom mëna a ku nek donc mu don lo xamné ne lu ñaaw la. gannaaw ba pas. ci si di Italiano li jël avion daal di Sénégal même jour vendredi ki di Omaro bu Cheikh wala sax présentateur à la DGTV. moom tamit vendredi boobu dañ ko jàpp fële sa wakaam ñu ko jàpp mooy nii di waa gendarmerie la lañ ko jàppee mooy kii di Umaro danoon dawal oto boo xam ne moom yore woon lii di permis même fekkee ni sax wane woon na woon na lii di certificat de perte waaye si lënd bii bu ñu jàppee si waa libération ñoom tamit lañ ni kii di Umaro gannaaw bañ ko jàppee yoru woon maanaam oto bu mu doon dawal amu woon lii di plaque en plus amu woon lii di assurance ñu bëri jàppee ne

si avec votre frère votre frère votre ami Mamadou Rassoul et n'oubliez pas de vous abonner sur WhatsApp TV et mangez beaucoup de bananes ciao merci beaucoup